pilote yi diggante Louga ak Ndar rawatina diggante Louga ak Sàkkal ñu ne benn horaire horaire njik faal bi euh, Njaga Njaay la doon dem Ndar euh, mel ni daje camion boo xam ne doon moytu mbaam bu doon jéggi ñu ni ci seede yi ñuy jëlee ci ñi fekkee yëf yi ba mu moom camion bi mu jógee euh, ci yoonam doon teggi mbaam bi ci la dajeek horaire bi am na ñu naan quinze morts am na ñu naan dix-neuf morts waaye loolu yëpp kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu woowu ñoo koy mm-hmm. confirmer mm-hmm. yi ñi fekkee yëf yi nee nañ diggante euh, fukki nit ak juróom jàpp fukki nit ak juróom ñeent ñoo ca ñoo ca loru ñàkk seen bakkan far sax sunu euh, xarit Daouda Diouf mhm. moom doon jógee Ndar fekkee yëf yi euh, Daouda ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la ak Alaaji Asan ci faram ñu lay ziar ba baax waaw ñu àndak yow rek xanaa ci tiis wéren wi ñeel tali bi waaw lu moo amaat fii nii ci ngeen moon bay dem Ndar jóge Louga ba yor horaire bu dajee ak euh, camion ci la ñu mbëkkante alaaj san jamono yi ma wax yow nii fukki ak juróom-ñeent ñàkk na ci seen bakkan euh, ci accident bi ak ay blessé hmm. jamono euh, oto yi demuñu dikkuñu li ñu xibaar yi mujjee taataan li ñuy wax mooy mbaam daal la doon éviter hmm. boo mu mu def collision mu mel ni collision bi amoon fële mu nekk nii moom ay sër la ñu jël Ajaasaan muur ko nit ñi mooy lu tiis lu yaram daw. Mhm. Euh, la ñu nemmeeku nga xamante ne mooy njaan euh, gouverneur de la région ñëw na sax pompier nañ gendarmerie tamit euh, ñëw nañu. Mhm. ak côté administratif yi nekk yëpp tamit ñoom ñëw nañu. Mhm. teew ci bërëb bi nga xamante ne moom la accident bi amee. su nekk ni ay sër daal la jël muur ko doomu aadama yi kenn demul kenn dikkul waa dëkk yëpp tamit mobilisé wu nañ. Euh, pour ñëw. wante gendarmerie rek di ngeen tere. Hmm. ñu jege ñi nga xamante ne daal. ñoom ñooy euh, ñàkk seen bakkan. loolu daal la ñu fi jàpp. daaw de blessé yi ñi amee gaañu gaañu ñu ngi leen di toppatoo wala rawale nañ leen. waaw nañ ñaari ambulance yi ñuy hmm. taxaw. Hmm. Euh, pour ñett ñett ñett ambulance sax parce que am nañ ambulance Croix na fi. sapeurs-pompiers yi nañ tamit ñaari ambulance sapeurs-pompiers yi ñetti ambulance ak ñaari camion yoo xamante ne daal ci lañ mën a yëpp ñi nga xamante ne. jot nañu am ay ay gaañ euh, gaañ dañuy bañ sax nit ñi jege. Mhm. Euh, pour des raisons de sécurité dañuy bañ euh, nit ñi jege sànq ma waxee ak bu bu yaamaar. ma si mhm. la ma waxee loolu. gaar bi nag ab dafa daanu complètement su nekk bi. Mhm. ak camion bi tamit moom kanam bi dafa yàqu. complètement complètement loolu daal la ñu si nemmeeku. ah gum fi mu nekk nii moom. sax ba bi ñuy jël blessé yi di leen dugal ndax su nekk wax dëgg yàlla bu dee matuwaay rek. sapeurs-pompiers jël nañ ko maanaam euh, bu ma si compter ñaar ñetti ambulance sapeurs-pompiers ñu ngi fi. seen mm. ñaari camion euh, ñu ngi fi ak tamit benn ambulance xamante ne croix rouge ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko wax naa mooy waaw région médicale bi la. région médicale bi. Mm-hmm. ñoom ñoo ñëw teew xam nga fii tamit euh, li ci gën a nemmeeku mooy yoon yi dafa xat. Mm-hmm. yoon yi dafa xat te bon daw yenn daw yi. Euh, c'est pas évident nit ñi tamit ñu vitesse yi waaye xam nga obstacle yi daaw da suñu suñu suñu suñu yoon yeeg àll bi dafay am ay garab yoo xam day taxaloog tali bi am ay mala yuy traversé et cetera y a beaucoup d'obstacles yu war a tax nit ñi xëy na di di di euh, wàññi vitesse yi daal mooy ba yàlla ñëw daal loolu la waaw loolu la effectivement loolu loolu mu góor wax na ne moom ab maam mhm. ak tamit euh, mesure yi ñu jël xam nga ñëppay demandoo peut mhm, mhm. pour dem Hmm. Euh, fi nga xamante ne moom mooy ndax comme dañuy léegi sorti au delà de de cinq du matin surtout bus yi donc à partir de sept heures euh, ñu fay euh, yëpp parce que ñun ñuy ñëw Ndar li ñu dem Dakar gis ay bus yu bëri yoo xamante ne ñu ngi yëpp di delloo di dem Dakar ñi di dem ay Louga ñi di dem ay Matam lu mel Euh, loolu tamit bokk na ci euh, maanaam vitesse yi dawul bu bari. te tamit comme dëkk yi ni ñu ko waxee. Euh, yoon yi dafa xat te mala yi dañu leen di tekki muy fas yi. Hmm. muy mbaam yi muy nag yi muy xar yi te àll yi amoon ay agglomération yoo xamante ne. Euh, gars yi nañu wàññi ni ñuy dawee. wala am mhm. tamit ñu doxalee seen oto. tamit nag xaj na si. très bien moom ah. lépp xaj na si. daaw doo ñu rappelé bërëb bi donc fi mu amee exactement euh, dix neuf morts nga wax. ci ban bërëb actuellement la amee. accident bi mbéri kii mbéri. Euh, mbéri ma woon jot moom du mën a wax. ok léegi moom laa bëgg a dama bëgg xool kenn. wax na dina ma mën a defal témoignage bi. Euh, fi mu nekk nii moom la yetan moom boobu seen ñii moom sa yaram day daw ah, ah, ah, sa yaram day daw ay nit ñu muur leen ñoom ñëpp ñu tëdd sax foofu yi salaa bëggoon jël mais xanaamal del laaj ñi ñu xam exactement euh, dëkk bi euh, naka la tudd ak tamit ñoom lan lañ xam na ci ma hmm. jëm ak ñu jege amuñu wax naa leen sama dañ ma daal hmm. ñoom bëgg ñu ñu bëgg ñu kenn jege wante il faut ma diggante ndar ak fan la góor gi dëkk bi si nan la tudd fii. Ah? waaw. fii la Mbane Mba Mbane Diop ak Ndiéyeen. diggante bi la ak Ndiéyeen. du mooy ci ma oreelu oreelu. Nji oreelu. Nji yow fii la la non. ndax fii la la yow fii dëkk bi nga dëkk. ah ñun waa RFM lañ dañ la bëggoon RFM yi benn témoignage rek euh, bi naka la. Ibra Top. maire de la commune de Guène Sarr accident bi mi ngi am presque à six heures moins cinq entre Ndiéy ak Mbande li ko provoqué provoqué nag benn mbaam la horaire ngi saal bi doon moytu bi koy moytu nag ese camion bi ñëw loolu tax choc bi presque face à face la euh, vraiment li ñuy jëkk a déploré mooy kani mbaam yi nga xam si ak fas yi nga xam si ñu ngi bërëg vraiment gouvernement bi nañ ci dimbali ba bu buñ ci jàpp ñu yóbbu ko fourrière su ko defee ñu téye mbaam yi téye fas yi nga xam ne ñu ngi nekk di bërëg ah accident bi nag metti na lool parce que bi ma fi toogee léegi musuma gis accident bu mettee nii benn accident dix-neuf morts presque même famille loolu wax dëgg yàlla lu metti la ñoo ngi koy déplorer baax a baax ah di ñaan ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan yàlla xaral leen àjjana même famille euh, mooy lan. même famille bi parce que benn xew dafa amoon euh, benn dëkk bu ñuy wax euh, càmbeen ñu ci bare doon ci profité ñibbi ndaxte comme dañ ni dañuy grève suba ñu profité ñi dañuy ñibbi loolu moo tax accident bi mette nii doon ci benn famille te ñu ci ëpp ñëpp ñi ngi dëkk Ndëngur dans l' arrondissement de Sakal commune de Sakal. man tant que maire gis nga ne prise en charge médicale bi jaar na yoon. waaw jaar na yoon parce que bi mu amee. man fekk na ma sax ma yore sama course waaye bi ma ko déggee la taal sama oto ñëw bi ma ñëwee déjà j'ai trouvé que fekk na fi lu ba cinq ambulances ñu ngi fi évacuer déjà ñi nga xam ne ñooy blessé ah génne ñi nga xam ci mooy les cadavres ñu ngi tëdd nii wax dëgg yàlla taxawaayu médical bi moom macha allah ñëpp docteur gouverneur préfet sous préfet ñoom ñëpp autorité yëpp taxaw nañ ci. vous êtes le maire de cette localité pouvez vous présenter. je suis de la commune de Ngetar. waaw maa ngi comment s'est passé l'accident bon l'accident j'étais pas témoin de l'accident c'est après qu'on m'a avisé loolu moo tax ma ñëw bi ma ñëwee fekk l'accident j'ai pas été témoin mais quand même on m'a raconté que euh, le chauffeur de du militaire euh, un âne sur la route après mu def face à face avec euh, un beneen et le véhicule en provenance d'où Le véhicule était en provenance d'un Guipal, dans l'arrondissement de Sakal, commune de Sakal. Et c'est une même famille ou bien en tout cas, il y a une partie d'une famille. D'ailleurs, j'ai interrogé le vieux. Il m'a dit qu'il a trois de ses enfants qui sont dans l'accident, victimes de l'accident. il y a combien de morts Il y a 19 morts pour le moment. Bon, aussi, il y a des blessés très graves. D'accord, voilà, donc, euh, oui Daouda kooku moom mooy maire localité bi. Mhm. jërëjëf Daouda vraiment ci liggéey bi. am na solo ñu koy métti lu ñun ñëpp ni nga ko waxee j'imagine que Sénégal yëpp. ñu ngi ci tiis am na fi wax dëgg yàlla. Ah, ah. sama pompier ñu ngi fi. Mhm. gendarmerie yi tamit mobilisé nañ say éléments yi bari. oui oui ñëw nañ ci corps mhm. médical bi ñëw nañ ci. Euh, administration euh, bi tamit euh, ñu nañu ak population yi. ñoom ñëpp suñu nekk nii moom vraiment blessé yi. yóbbu nañ leen xam naa kañ suñu ne leneen li mooy euh, comment euh, prendre les morts euh, hmm. pour yóbbu leen xam naa ci ay morts parce que il faut ñu identifier leen hmm. te comme sànq ni ko chef de village bu waxee mooy ñu bëri ay famille la ñu woon xam nga comme suba transporteur dañu fas yéene grève hmm. xam naa ci la ñu bëri nag ne daal nañu waajal Euh, ñibbi benn yoon ci benn yoon. ok très bien nekk na lool lool. métti na juróom-ñeent gaa ñu ñàkkandoo ñoom ñëpp seen bakkan. Hmm. Euh, boo gisee euh, bis ni mu daanoo rek. Hmm. ak camion bi ni mu ni ni ni si place chauffeur bi ni mu yàqoo rek. Hmm. nga xam ne choc bi. choc bi métti na métti na ah, métti na métti na. jërëjëf ñu ngi jël ñu ngi jël. moor yi ñu ngi jël moor yi di leen dugal ci ambulance bi xam naa pour yóbbu leen ci xam naa hôpital bu gën a jege zone bi bu nekk soit saint wala wala wala. très bien merci jërëjëf Daouda vraiment jërëjëf ñu ngi lay gërëm baax laaj Hadj Daouda Diouf di la ñaanal yoonu jàmm accident ci la yem ci yoonu ndar wi euh, boo toll euh, diggante Ndiéy ak Mbann la accident bi amee euh, ci daanaka presque njaboot gu jóge woon aw xew ca Càmbeen fukk ak juróom-ñeenti bakkan yu ci rot ak ñu bari ñu ci ami gaañu gaañu ci car Njaga Njaay horaire bu mbëkkanteeku camion bu doon car bi doon moytu ab mbaam ci tali bi vraiment tiis weneen na ti ci Sénégal. ñuy jaaleti rek réew mi yëpp RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minute ak ñeent.